xalifa maam xalifa Niass mi ne mi ngi wax aoudu billahi min alcheytaani arrajim waaye di ubbee kàddoom bismillahi arrahmani arrahim di wax laa hawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim mu ne gannaaw ba ñu sante yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin wax ñëpp nañu wax alhamdulilahi rabbil alamin waaye di julli ci yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di sant Seydi Ahmed Tijani Sharif waaye di gërëm di sant di ñaanal sunu maam Alaaji Abdoulaye Niass mu ne tabaarakallaahu di nuyu mbooloo mu tedd mi yëpp di ci jiital eh, xalifa macha allah cheikh mouhamadul mahi ibrahim ak mbooleem surtout maam alaaji Abdoulaye Niass yi taalibe yi di leen wax ne lii yëpp maam alaaji Abdoulaye Niass la mu ne waaye tabaarakallahu gannaaw boo mu jagleel nuyoo xalifa cheikh mouhamadul mahi mu ne mi ngi ciy teg imaamul akbar cheikh Cissé di ci teg porte parole di ci teg porte ba mbooloo yëpp waaye di nuyu mbooloo mi yëpp di sant mbooloo mi yëpp. di sant mbooloo mi yëpp. di gërëm mbooloo waaye di gërëm mbooloo mi yëpp. lii am tey. mu ne tabaarakallaahu lii am tey. maam Alaaji mu ne maam Alaaji Abdoulaye Niass radiyallaahu anhu ba mu génnee àddina. sama baay ko eh, eh, mu ne baayam xalifatul xaaji Muhammad mi nga xam ne moo nekkoon taay maam Alaaji Abdoulaye Niass. moo ko denc fii nii nekkoon ci kanamu daqaar gi. mu ne booba daqaar moo fi nekk. gannaaw gi. mu ne gannaaw gi. sama baay tabax ko. tabaarakallahu 1923 baayam xalifa Haaji Mouhamad tabax xabru Maam Alaaji Abdoulaye Niass bi. mool yooyu nga xam ne moom lañ ko tabaxee mu ne boo ngeen mool yooyu nga xam ne moom lañ ko tabaxee woon. marché lañ ko lañ ko mu ne dañ ko commandé woon sa marché yi muy mool yoo xam ne macha allah ñëpp gis nañ ko kerek bañ ko dindee. mu def ko muy tiwul bu rafet bu gudd. mu ne mu def woon ko muy tiwul bu rafet bu gudd. ba amee. mu ne ba loolu amee. mu dem barab. mu dem ba nga xam ne méngootul ak jamono. suñ baay. mu ne suñ baay. muy alhaji Ibrahima Niass ñu ko muy cheikh al islam El Hadj Ibrahima ñu gën kaa xam ci maam baay Niass. moom ñëw toj ko. moom it ñëw tabaarakallaahu ñëw toj ko. tabax ko tabax ko. mu méngoog jamono jooja mu méngoog jamono jooja. yàlla defee ba yàlla ñëw indi suñu sët. mu ne nag ba yàlla dogal indi ab sëtam. boo xam ne. mu ànd mbooloo mu tedd moo xam ne. ne moom def ci allah dafa bëgg ñoom ñu yeesal fi nga xam ne mooy dari Mamada Jabla Ñas ba méngoog jamono. macha allah dañ ko sant gërëm. mu ne kon nag macha allah suñ sët boobu ak ñim àndal ci liggéey boobu muy Cheikh Ibrahim ñu gën kaa xam Cheikh Baye Oumou mu ne faw danañ ko gërëm dañ ko ñaan yàlla yàlla yàlla guddal fanam ak képp ku amin. ndax mu ne lii. mu def ñun ñëpp la waroon. waaye nag ñoom ñu wàccee ñu. waaye tabaarakallaahu wuutu nañ ñu ci ñoom ñu nekk ay naabu naaibul faa'il. kon duñ def lu may ñaanal. mu ne kon duñ def lu dul ñaanal ko yàlla. di sant na mbooloo mi waaye di sant mbooloo mi yëpp. fi ndax fépp foo xamee tabaarakallaahu dégg na jëf ju rafet ju tedd ji rek nit bàyyi ko fi na ñoo ngir teewee ko mu ne fa tabaarakallah man suba am na téléphoné arabe saoudi mu ne sa suba am na ku ko télé téléphoné nekk ba arabi saoudi internet moo tax dara umpatut ndax mu ne internet bi moo tax dara umpatut ni mu gisee bi ak ni mel. mu ne bañ gisee xabru bi ak ni mu mel ak ni méngoog jamono. mu ne tabaarakallaahu dafa feeñal mbégteem ak kontaanteem. ñaanal ma. ñaanal ñaanal xalifa bi. ñaanal waaye ñaanal xalifa Cheikh Mouhamadul Mahi. ñaanal njabootu Alaaji Abdoulaye Niass gépp rawatina ñi nga xëy ñoo doon liggéey liggéey bi kon mu ne kon daal loolu. mooy wax moom mooy nekk kàddoom. xam ne ñeseen. xam ne nag ñeseen. benn bopp la. mu ne benn bopp rek la. kenn mënu ko xar ñaar. kenn mënu kaa xar ñaar. ku ko bëgg a xar ñaar mu ne ku ko bëgg a xar ñaar. da ngay mu ne da ngay sonn rek ndax xaaju ndax El Hadj Abdoulaye Niass mooy génn jëmm ji nga xam ne ñun ñëpp ci lañ bàyyi ko. min kay ilayka mu ne ndax ku nekk rek sa morom min ka ilayka rek rek. moo tax moo tax. ay bokki neen mu ne ñun ñëpp ay bokki neen lañ. dara doxul suñu diggante dara doxul suñu diggante lu du teraanga ak rafetal wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kaana aleykum raqiba ak jàmm ak salaam mu ne ak jàmm ak salaam rek moo dox suñu diggante ndax moom ndax moom mii macha allah di Cheikh Ibrahim mii nga xam ne moo joojoon liggéey bi ak ñi ko doon jàppale li tëdd fii bu ngeen gisee li tëdd fii te maam Alaaji wax ne te maam Alaaji Abdoulaye Niass mu tedd moomu daan na wax ne su ma génnee àdduna ba am téeméeri at. bu ma am bu ma génnee àddina ba am téeméeri at. danañ xam ne man du moroom kenn. mu ne danañ xam ne man du ma moroom kenn ndax man ana xalifatu tijaani yu saami wa inna ni jubtu lahul mawaami. sama baay nettali na ma. mu ne baayam xalifatu Haaji Muhammad nettali na ko. ne ko maam Alaaji. ne ko maam Alaaji Abdoulaye Niass. daan na leen wax yéen doom yi. daan leen wax yéen doom yi. war ngeen a sant yàlla te gërëm yàlla. war ngeen a sant yàlla te gërëm yàlla. ndax man bokkuma ci yéen. ndax man bokkuma ci yéen. dama jox ci seen biir damaa jox ci seen biir yàlla moo ma leen baaxee rek. te Mamalaaji. mu ne te Mamalaaji Abdoulaye Niass. Baye Cheikh Cheikh Baye ba mu fa ñëwee keroog. mu ne Cheikh baay mii ba mu fa ñëwee keroog. ànd ak eh, délégation. ànd ak délégation boobu. wax ma ko. mu ne wax ko yéene bi ak jëf ji. dama na ko yow de maa ngi lay soog a ko yow de maa ngi door a gis. waaye dégg naa la démb. waaye dégg naa la njëkk nga fiy ñëw. tey nag laa mu ne ko tey nag laa la soog a gis. gërëm naa sant naa. mu ne xalifa bi ne. gërëm na sant na. sama njaboot gërëm nañ. mu ne njabootam ak lépp lu aju ci gannaawam gërëm nañ sant nañ. wax ko ko mu ne ko maa la koy wax mu ne wax na loolu la. kon kon. boppam la ko mu ne wallaahi. Hmm. Ah, sa bopp nga ko defal. defalu ko kenn mu ne macha allah defaloo kenn waaye def sa bopp nga ko defal. boppam la ko defal. sa bopp nga ko defal ndax lépp lu baax rek man amila saalihan te fali nafsi te mu ne te. maam El Hadj Abdoulaye Niass. maam El Hadj Abdoulaye Niass. lu ko waay lebal. lu ko waay lebal. mu fay la mu ne mu fay la ko. ba mu ne mi ngi lay wax ne ba déwén nañ xaar ba ba déwén. Hmm. soo soobee mu ne bu soobee yàlla. da ngay defaat yeneen jëf ju. mu ne da nga defaat yeneen jëf yoo xam ne nii ci ay xayraat lay doon yu jé yu baree baree baree bari yàlla na yàlla nangu yëpp. ñun nag maama laaji. mu ne moom maama laaji. ñun sët yi xamuñ ko. mu ne ñun sët yi xamuñ maama laaji Abdoulaye Niass. ndax jën dafay yeb. mu ne ndax jën dafay yeb ndox moom dëkkal du ko ndax ndox mi mu dëkkal. ndax ndox mam dëkkal. nu ko neexee feeyee. mu ne nu ko neex feeyee ca te xamul ne ndox mi moo waral jën bi di feey nu ko neexee. waaye maam Alaaji. waaye maam Alaaji Abdoulaye Niass. jaamur yi nga xam ne du ñu sëriñam du seen sëriñ. mu ne jaamur yi nga xam ne. tabaarakallaahu du seen sëriñ. ñoo xam maam El Hadj Abdoulaye ñooñu ñoo xam maam El Hadj Abdoulaye Niass ak njabootam ga ndax maam Khalifa nee na woon acheikhu xaamilu raayatil qawmi billahi laahi ba am benn waay boo xam ne. mu ne dafa am waay joo xam ne. benn beneen tariqa la bokk. dafa bokkoon ci beneen tariqa. mu ne du tudd nag tariqa ba. ba mu ko defee. ba mu ko defee. mu doon liggéey fi ñuy wax Linjaan. mu doon liggéey fu ñuy wax Linjaan. mu am këyit bu bëgg ci patron bi. mu am këyit bu mu bëgg ca patron ba. tubaab bi bañ. mu ne tubaab bi bañal ko ko. ne ko non non non. ne ko non non du ma ko def. du ma ko def. mu bàyyeekoo Linjaan. mu Linjaan. bisu aljuma. bisu aljuma. ñëw ziare si Mame El Hadji. ñëw ziare eh, si Mame El Hadji Abdoulaye Niass fii. tawat tawat mbir mu ne tawat soxlaam boobu ci Mame El Hadji Abdoulaye Niass ngir yàlla fajal ko ko ko. mu xëy. mu ne mu xëy. dem biroom dem biroom. ba dafa remplir ay carnet yëpp. mu ne eh, remplir ay carnet yëpp ba noppi. dem ci patron bi muy tubaab bi. dem ci patron bi muy tubaab bi. ne ko li ma la doon wax de moom laa ñëwaat delloo ko. mu ne ko li ma la doon wax de moom laa ñëwaat di ko feddali. mu ne ko soor génnal sama. mu ne ko soor génnal sama bureau. nee la du ko def. wax naa la ko def. baax na. mu ne kon baax na. mu ne naka la génn rek. deux mu ne dox ñetti mètres. tubaab taxaw ci mu ne tubaab bi taxaw ci kaw balcon ba. ne ko. oo ko ne eh. ko mu geesu ko mu geesu mu ne ko ñëwal. après. mu ne après. mu ñëw mu njëw. mu ne mu jël kayit gi nga xam ne mooy talab bi muy demande bi. daal di bind bind ba pare. daal di bind ba noppi. di signé daal di signé. ne ne ko signéel fii. mu signé ne ko mu signé. mu mu ne ba waajab li nga xam ne la ko waaja bañoon nangul na ko ko ci barke El Hadj Abdoulaye mu ne ba mu génnee ne cey sama waaja muy El Hadj Abdoulaye Niass mi nga xam ne moom la maam xalifa ne mislul xalifati abdillahi asliya man qad naala minhu maqamatin muslimaati man hajja lillahi bayt allahi muhtasiban wa zaara fi taybata xayril bariyaati wa zaara shaykhiya fi faasina ala kibarin laakin yuharrikuhu xubbul mulaaqaati fa naala dalika yaqdaanan wa saafahahu bahrul macaarifi yanbuucul karaamaati mu ne kon nag ba mu ko defee mu ñëw ne ma yéen xamu leen seen maam. mu ñëw nag ci xalifa bi ne ko yéen wallahi xamu leen seen maam Alaaji Abdoulaye Niass. am na benn bés. mu ne am na benn bes mu ñëw ne ko maam. mu ñëw moom mi xalifa bi ne maam. yow baay. mu ne ko yow baay xalifa. du ma leen ñaanal dara. duma ma la ñaanal dara. tey du ma leen tey du ma leen jox benn hadiya du ma leen ñaanal. ñeenti fan a ngi joxe wu ma. ndax ñeenti fan a nii joxe ma dépense. <laughs> mu ne muy génn. maalam maalam mi gaañu. mu ne maalam mi gaañu nekkoon fii. ànd ak goj ay mu ànd ak ay délégation awso yu bari. may mu ne muy génn mu puus ko tuuti. ma ñëw mu ne okk ko mu ñëw taxaw. awso yi wër ma. mu ne awso yi wër ko. maalam ne ma joxeel ñaan. maalam ne ko joxeel ñaan. ma joxe dog mu ne mu joxe dog. ñu def ñu joxe dog mu def. ñoom kenn ku ne lam lam lam génne. mu ne ñoom kenn ku nekk la lam génne ci boosam tey si loxoom. jox ko maalam jox ko maalam. maalam ne ne leen kii moo ko xeewoo. ne leen kii moo ko yelloo ndax surtout ala jabla ñes. ndax surtout ala jabla ñes la. ba ma génnee xam nga lu wax. mu ne ba mu génnee xam nga lu waxam. mu ne bët ñëw. mu ne bët bu set danaa ñëw xuloog maam ala jabla ñes ndax ku xuloo rek nekk si la gën a gaaw. macha allah mu ne kon alhamdulilah sant yàlla gërëm naa El Hadj Abdoulaye mu ne gërëm naa El Hadj Abdoulaye Niass. jataay rafet na ndax mu ne xoolal jataay bi ni mu teddee ni taaroo. Ah. jëmm yëpp jógee ci jënn jëmm ju tedd jooju mu yaqubu tariqa El Hadj Abdoulaye Niass. nga jë amee ca ak Cheikh mu bàyyi. mu ne gaj jataay bi nga xam ne njabootu El Hadj Abdoulaye Niass gu tedd gii dajee ci waxtu wii ci barab bi gëj naa am ci xilaafa Cheikh Ahmed Tijani. ibnu cheikh ibsalaam yi alxaaj ibrahima ñes maam xalifa ca takkusaan googe nga xam ne fi leen doon defee zaawiya boobu euh, euh, mu nga wa zikar su àjjuma soosu macha allah mu ne jataay bi jataay boobu la ko fàttali loolu tey wecc na ko mu ne tey jataay bii day fàttali na jataay bi te lu war a am la maa ngi xamal taalibe mu ne mi ngi nag taalibe yi ñeseen benn bopp la jarut ngeen ci dugg de benn bopp lañ bu yeboo ngeen maandu kenn ne na nga xam la ngay wax mu ne kenn ku nekk na nga xam looy wax de. mu ne na nga xam lu ngay def ndax ñoom ñëpp ay waliyu lañ te seen yàpp wi luxuumul awliyaa i masmuma. te bokk ci nag. mu ne te nag bokk ci. bokk gi mu ne bokk gi. nañ ko defar nañ ko gën a defar nañ ko gën a rafetal. nañ ko defar nañ ko defar gën ko rafetal. bokk ak yàlla la mu ne ndax mbokk gi ni bokk ak kenn yàlla moo ñu ko tànnal. bu mu ne bu ñu ko yàlla ne wàccal. dafa mu ne dafa bañ moom mbokk. mu ne ko li tax mu ne ko li tax ma. mu ne ko dañ may dog mu ne ko dañ may dog bu ma wàccee. mu ne ko wàccal mu ne ko wàccal. boo demee ca suuf képp ko la dog ma dog ko képp ko la jokk ma jokk walladina yasiluuna maa amara allahu bi an yusala wa yaxshawna rabbahum wa yaxaafuuna soo xisaab aaya ja fa muy jeexe mooy jannaatu adnin yadxuluunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim wal malaikatu yadxuluuna alayhim min kulli baab salaamun aleykum bima sabartum fa ni'ma uqba daar kon ku mënta muñ mënoo jokk bokk kon mu ne kon mi ngi jeexal kàddoom di wax alhamdulilah di wax alhamdulilah yéen ñëpp wax leen alhamdulilah man de foogumoon ne bés ko fekkee. mu ne moom day foogutoon ne bés bi dana ko fekkee ñu defaraat tariixa bi ba mu fekkee ko. moom it foogu bi xalifa bi it foogu ko woon. yàlla may nañu ñun ñaar mu ne loola yàlla may na leen ko ñoom ñaar ñëpp ci seen xay loolu nag dalika fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim muy sama xarit mu ne moom cheikh Mouhamadou Mahi nekk xaritam démb moom xam na xam na mu ne moom xam na moom xam na alhamdulilah mu ne alhamdulilah. mu ne ku ma waxoon ne ma. mu ne ku ko waxoon ne ko moom Cheikh Ahmed Tidiane mi. boo nekkee xalifa. boo nekkee xalifa. yaag Seydi Mahir yaag Seydi Mouhamadul Mahir ñu defar xabru bi mu pare ngeen fekkee ko. mu ne moom de koo waxoon du ko gëm. alhamdulilah mu ne kon nag alhamdulilah sant yàlla yàlla nañu ko yàlla nangul. nawet bii. mi ngi ñaan nawet bi xam ne mooy mooy mooy mooy yaakaaru buur. nga xam ne mooy yaakaaru yaakaaru baadoolo. yal na yal na ko yàlla. yal na ko yàlla àggale ci barke Maam Alaaji Abdoulaye Niass. réew mi ni ko mu ne ni ko tabaaraka Cheikh Mouhamed Bachir waxee réew mi. yal na yàlla def fi jàmm. yal na yàlla indi fi jàmm joo xam ne jàmm ju yaatu tappe xol yi ñëpp nekk benn. def jàmm ci àdduna waaye def jàmm ci àdduna bi rawatina si Niger gee nga xam ne macha allah sunu bokki taalibe lañ yal na yàlla indi fa jàmm yàlla bu fa dara tàkk. mu ne dafa yëngu. mu ne fi mu ne àdduna bi dafa yëngu. na ñaan mu ne na ñaan ndax ñun ay jullit lañ te jullit addu'a u silaaxul mu'min na ñaan yal na yàlla defal jàmm ci àddina bi bu ñu amutoon mu ne ndax ñun ñii Sénégal ñun bu ñu amutoon jàmm. waaye duñ toog fii duñ xanaa xalaat a toog fii. mu ne léeg-léeg ñu geesoo xool ba xam dana am lu ñëw dugg. dana bëri ñu rocceeku de. mu ne boobaa kon dana am ñoo xam ne danañ rocceeku wala du ñëw. mu ne kon jàmm. ci la lépp xaj. fekkee fekkee jàmm ak tal yal nañ ko yàlla defal. ci zahir ak ci baatin. di gërëm ñëpp.